Euh, le monde euh, des arts mooy maanaam culture bu ñu culture culture la dafa yaatu sonn nañu fi mu ne jaaxle nañu tiit nañu ndax euh, événementiel ak spectacle ak culture dañ koy préparer ay weeri Vous voyez préparer weeri weer dem ba mu jékki-jékki rek ñu ne la mënatul am xam ne loolu diis na artistes yi ngeen di gis nii ku ci nekk cinquante personnes derrière bu nous faites musiciens yi xëy na dinañuy wax turu chanteur bi waaye musiciens yi ak ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw les technicien ñu jar a jàppale kon nag monsieur le ministre dama bëggoon wax ne que euh, ah jàqare mi ngi doon commencé am parce que man mii dëgg-dëgg yàlla message yi ma jot jege ci samay rakk artiste ñu wax ma ndax gis suñu proximité bu ma am ak yow ak suma liggéey bu ma am ak président de la république ñu yaakaar ne Euh, plaidoyer bi du dox du du du doy kon nak euh, ñom ñëpp wax nañ ma tey nag bu ñu li xam nañ ne que suñu kilifa jogna pour ñu waxtaan ak ñu pour dalal suñu xel ba paré ñu yaakaar ni rapidement alors monsieur le ministre le plus rapidement possible il faut faire quelque chose. ku ku yuuxu rek da nga gëmul yalla hein ah, parce que mbir mi ñëpp ñëpp la metti na ci ñun lool lool sax parce que am na yoo xam ne chaque guddi dañuy jouer hein bu dul loolu sax sama mbokk restaurant yi ak suñu boîte de nuit yi chaque guddi dañuy joué te ay yor suñu yor suñu njaboot ah dañu yor suñu njaboot war a dundal suñu njaboot tey yàlla xëy si bu ne affaire bi ne këpp duñu ko teg ci duñu ko teg ci kaw kenn nag ah dañuy ànd suñu ngor rek waaw ku nekk euh, état bu nekk yaa ngi jéem a góorgóorlu en tout cas pour indi euh, seen dimbal si population bi ñu population bi ñëpp nag si lañu bopp ñëpp si lañu bokk ñi nga xamné nak nag euh, am na sax doon na gën a métti dañuy xey chaque matin pour xey dem dem door war ñëwaat au jour le jour donc on est un peu dans ces mêmes situations mais pas tollu ñu fofu deug donc c'est c'est impacté c'est très difficile parce que budul dara sax euh, voilà li nga tam gisante bi euh, voilà feeling bi dem ak dikk bi ñu suñu suñu liggéey dem la jouer jël avion dem wacc dem ci dëkk ñëwaat mais tay lépp dafa ne tek taxaw depuis presque belle lurette ñu ngi ne teg yënguwuñu liggéeyuñu te te ku liggéeyul ni ko wolof di waxee doo fayeeku moom bu amee xel mi ba déplacé wu pour ñëw wax nañu fàttewu ma leen ah man day rafetlu naa ko te gëm naa ne ak moom incha allahu rabbi kilifa réew mi wax moo benn geste mais dina def ay geste yu bari ci le monde artistique. Euh, il était important aussi si ñun acteurs malheureusement ñu visiter mais def ay échantillonnage bo xam ñu leen ñu parce que écoute fi indi hein, au nom du chef de l'État et du gouvernement ndax avons gis nañu artistes ku nekk jàpp nañu dimbali gouvernement bi si relayer information bi relayer consignes relayer loo xam ñu xamné ne loolu am pour moyen de protection euh, benen bi tam lu may wax mooy euh, xanaa ma remercier len ci loolu ma féliciter len ci loolu ma ñëw masawu leen tam